émission préférée Café chaud C'est toujours un plaisir, je vous ai dit, euh, de vous retrouver tous les samedis matin à partir de midi. ah ñu daal di ànd rek daal di def ambiance daal di ànd rek waxante lu baax daal di ànd ah pour une heure de news une heure de nouveautés ah loolu yëpp nag ci émission Café chaud ngeen di ko am ñi ñëpp nuyu naa ku ci nekk sa ah, j'espère que yéen a ngi ben ben ngi week-end bu neex et que samedi matin bi daal wax dëgg yàlla météo ndax nee naa leen koor

mën amé tek ci du fenen alors dañuy tàmbale rek li nga xamné moy suñu suñu suñu émission euh, ñu tambalé ko comme tous les samedis am benn clip bu neex man amuna na clip bo xamne ne euh, wax deug yalla dafa neex loolu nak clip bi euh, suma kay deglu déglu damay day dàqaale sax nak koor muy ay jeune ay jeune je pense que mbaaw lañ deuk bu dee juumuma waa Fass si je me trompe pas mu nekk ay jeune groupe bi tudd Palen. alors vraiment nee naa la ñu génnoon fi benn clip bu am solo lolo mais juste après dina recevoir tamit ay jeune yo xamne ñu ngi wajjal benn événement bu mak dinañ fi ñew dal di expliquer groupe bi kañ ak lutax ñu sosko ko buñ jógee ci loolu tamit dinañ dalal ki nga xamne ne mooy benn jeune groupe de rappeurs dinañ ñëw tamit fii ah waa New Style ah, nekk fële ca jëppal ñoom dinañ fi ñëw tamit daal di wane li nga fësal li nga xam ne moom lañ xam buñ ci jógee tamit nag ñaari def tuuti ambiance def clip may leen ko ah di ko may surtout tey nag émission bi xam ngeen kan laa ko may euh, sama doom Adama Wilane nga xam ne tey la birthday am euh, doom bu ci kanamee léegi ma laa di ñëw ci yow alors Euh, pour commencer, cette, émission, on va tout de suite aller suivre le clip de Parlen Ndanan, Mignon fille sur le plateau. A tout de suite. calma, dopo tu manna ferran, vai wallian, ba mai faran, ba fatte ada iman. Ni finde ke yeu, nyom da nyom fatte ye, sudo adi gana de, ba sunyi non di nyure. Nyum gam gam langdan keme, ba fjawala musa nyeme, adi nindi ke jam hip hop, adi talen nolen tege. karnım sede Bitbotek nyokoy wale Nekon na nyo ay kone Rewa mo yu dofre Tainan maganin nyo boy ba? barang ne li ñu vous avez suivi avec nous ce très beau clip de Palendana, daanaan ko clip bi wax dëgg ça fait bouger Sans rek ñu may wax sama sama caméraman sama caméra woman bu xarañ bi nee na ma face de l'homme. lañ kon képp ku beaucoup de Delorme maa ngi lay jaajëfal bu baax a euh, juste le temps de recevoir nos premiers invités néewoon tout le temps damay am tendance daal inviter invité li nga xam ne ay jeunes ay jeunes yoo xam dañuy contribuer ci li nga xam ne mooy avancement euh, euh, tout le temps vraiment de nekk un plaisir pour d'aller en fii ci seen plateau Café Show alors euh, ñi may bëgg a dalal nag euh, mu nekk benn mouvement de jeunes ah ñu jugee fii ba jugee ba Ouest Foire euh, ñu leen di tuddee Ansar ah Force One xam nga mouvement new generation yooyu mooy loolu teg ci mu nekk ay jeunes cadres ay jeunes cadres ah alors dama leen di bàyyi déjà ku ci nekk ngeen présenté wu teg ci ngeen nuyoo ñi nga xam ñoo ñuy seetaan. waaw asalaamaaleykum.

d'accord bu ñuy def Sorano ren. moom moo ñu indi woon tey fii pour ñu siwal ko. d'accord ci biir euh, seen antenne. yow yow nag ci mouvement bi yow yaa ci kan. man maay vice président bi. yow yaay vice président ki nga àndal nag nu mu tudd wala yow. moom xaar ma paas na mu Matar. <laughs> salaamaaleykum maaleykum salaam. Euh, maa ngi nuyu ku nekk ci tur ak sa santam. Mhm. di nuyu waa RTS bu baax. Mhm. Euh, maa ngi tudd Makhtar Fall. Mactar mhm. yow lan nga ci mouvement bi. euh man membre la ci biir mouvement bi parce que tout qui est activité c'est membre qui organisation. ah d'accord ok d'accord alors tay euh, président bi nga xamné tay mo moo ñëw nga nga fàttali ko ma tur bi tout xam nga koor bi daf ma teel japp tay Abdoulaye Seck Abdoulaye Seck a ah, Seck ndaanaan légui yaa ngi jógee Saint-Louis pour ñoo ci émission bi. waa Saint-Louis ñu ngi lay seetaan nuyu leen ba paré saint louis pare. nuyu leen nuyu leen wa Saint-Louis ñu ngi lay xamné ñun waa Ndar lañu dañu nekk Dakar ah, rek. d'accord cherif euh, fi la nekk tank Dakar tank Ndar mais suñu programme bi Dakar lañ ko bëgg def fi capitale. d'accord et c'est votre deuxième édition. édition waaw première édition bi déjà ngeen wax ñu déjà kan euh, idée bobu idée tay def mouvement bu toll parce que bo xolé mouvement bu mag mhm, la. ngeen am déjà initiative créée, créé déjà nak la leen diggé à première édition mais fan la won ak nu mu démé won voilà ñun ay cadre lañ. Ce qu'il faut, cher Marfou, dont Cheikh Sable déjà, nous sommes des jeunes top si nous avons une initiative mhm. pour dire que nous avons des caram. D'accord. Voilà. Les gens qui ont organisé un événement, nous avons 10 ans. Nous avons 10 ans. Nous avons fait 10 ans. Nous avons fait 10 ans. Nous avons fait 10 ans. Nous avons 10 ans déjà. Nous avons fait un programme pour Mac Dakar. Nous avons une soirée religieuse. Nous avons fait un D'accord. Le 26 juillet. D'accord biñ ko fa defee affaire yi réyoon nag trop trop trop ba ëppoon ñu loxo. voilà ren ñu def ko le 18 mais bii baa ñu changé lieu yi def ko Sorano pour ñëpp mën ci gis seen mais Sorano rëy na de. rëy na mais xeeb nañ ko ñun. ah fu mu nekk nii da ngeen bëgg xalaat sax est-ce que sax doo leen dem Grand Théâtre. voilà.

ku nekk fa nga bokk nga wane ni fii nga bokk et puis nga taxawal diine bi carrément euh, sant yàlla sant Seydina Mouhamed ñun comme que côté xaadir lañ mm-hmm. ba xaadir yi bëri nañu Sénégal lool léegi nag bi di ko taxawal di si sant Cheikhna Cheikh Saad di si invité jullit yëpp ñu ngi cay fekk ñu leen di wax kuy Cheikhna Cheikh Saad ndax am na ñu ko xam mais am na ñu ko réere ndax euh, lu mu nekkul Sénégal nekk Mauritanie dëkk bu ñuy wax Nimjat. Mhm. du dëkk bu sori bi àll bu sori bu lëndëm

Euh, ay xëddam ak yooyu pour mën xëy nekkaat ci bëccëgu kooram mais nit ñi dañu am tendance di xaw a yéex a ñëw ñu leen di ñaan bii paa ñuy xaw teel a ñëw mhm. ndax ku ñëw mën am place bu baax bi nga bëgg mhm. ndax déjà loo xam ne entrée libre la ah ok d'accord alors amul entrée amul fay amul dara dañuy ñëw sant ba rafet mel ni nga war a mel ñëw toog ñu sant yàlla mhm. sant Seydina Mouhamed sant Cheikh Nassir Sadou loolu daal la ñuy wootee. Mhm. wutuñu rek lu dul entrée bi daal mooy nga mel nga mel ni nga war a mel daal. solo non parce que nit ki sax bu fekkee da nga war a sax euh, euh, sant suñu borom da nga am mhm. tamit li nga war a mel. voilà du caagaane xew rek ka tax nga war a defaru. du xew rek ka tax nga war a xeeñ neex. waa joxal ma micro bi sama càmmiñ bu baax. en plus tamit dañu exiger pour euh, jigéen ñi suñu ñëw ñu muur seen bopp yi. parce que kenn du ñëw ci guddi Seydina Mouhamed. dëgg la bàyyi sa bopp noonu. daa mel ni comme ni ma ko defee nii. non pas yow ni nga defee parce que <laughs> nii daal teg ci col bi léegi nag lii ci des nag ñëw ba sama émission di ma tendance <laughs> yéen li ma def nii baaxul. ba nga def nii baax su ma ñëwee nii Sorano lu nga def nii da da nga génn couleur ah. instant yi da nekk ci été bi quoi. dama nekk ci été bi nekk ci bi kon ma def ci musóor. waaw en tout cas daal ñëwoon sànni sa benn col. sama benn col bu baax sa benn col bu baax. comme ça soo ñuy ñeneen parce que référence tamit ci aduna ñep mhm. parce que luy aduna du seetaan. Mhm. nga ñëw ak sa bop ne ñu ne ñii seen diine fu mu leen jaar parce que islam tout temps day naan ñu muus suñu ça mom c'est vrai wa xam mhm. tamit jigen bu nekk war nga ñëw indaale sa kool muus bop parce que fi ku ci nekk soy dem xew di nga wone sa bop mais li woote wu ñu Mumbaay dañu wote pour sayidina Mouhamed. ak Cheikh wasallam bi. bi nga xamante moñ taxajuk tamit ci yoonam tamit lañu fassé fassé na dox ba dé d'accord kon on peut dire l'entrée c'est tenue correcte exigée. exigée et voile aussi correctes yu exigé. waaw mooy tenue correcte exigée rek. waaw man voile bi ding ko baye de. et puis ñu heure bi dal man problème heure bi lay wax nit ñi nañ teel a ñëw parce que daaw dafa am nañu dal. Mhm. am nañ seen ay invités yo xamni vraiment bëggoon nañ ñu téwé affaire mhm. mais dañuy yéex a ñëw te xam nga genre événement yooyu mëno yëkëti nit ni ko jogal jox diw mu toog. d'accord ñu leen di ñaan ñom ñu fay fekk pour ñom ñu ñëw parce que do leen jël parti pris pour kenn amul ki diw la amul ke diw la. ku njëkk ñëw moy am place bu baax. kon sénégalais dégg ngeen li nga xamné mouvement wa ANSAR li ñu wax mhm. nee bo leen teelee ñëw di ngeen am place bu baax te wax dëgg yalla euh euh, mouvement bu melni dafa ñu di euh, rare nga déjà ay jeunes nek ci lu euh, je me dis que tout le monde doit mettre la main à la pâte su ko defee affaire yi gëna mais comme ni mo wax mouvement bi mhm. est-ce que am nga ñu leen di jappalé waaw ñun dund ci Cheikh na Cheikh barke mhm. Cheikh Cheikh mhm. ak ah peu de moyens yi am membre yi ku am def ñu am

mais daal guddi yi ñu toll daal ñoo ngi lancé appel képp ku si bëgg dugal sa loxo ndax yëfa julli li la daal dëgg la waaw ci lancé appel boobu sa laalee wax nga teg foofu sa loxo euh, Alassane à la bu dee euh, mën nga ma daal di kalal benn woyu xaadar bu neex rek ah ma baaxee ko sama invité yi wax dëgg yàlla xaw ma ne woon ay xaadar bu dee en attendant ñu daal di euh, tënk waxtaan bi rek uh-huh. nga daal di ma préparé benn wuyu xaadar bu neex ma may ko sama sama sama xarit yi uh-huh. waaw ci loolu nag laa bëggoon nga ñëwaat ci li nga xam ne mooy fu mu nar a

bàyyi mu la fay dugal koor nga nek da ngay am say invité ñu jóge fu nek ndax ñu wax na la wandar Ndar lañ waa ngeen ndax ñu bëri dañu fay jóge Dakar fii macha allah c'est vrai te il faut fo wote ay jullit di nga leen teral mhm. teral bobu nak lepp dafa am ay moyens la laaj mhm. mais ñun bon xaru ñu kenn ku mhm. ñëw alhamdulilah ku ñuul aussi ñoo ngi ci baax incha allah di dem ah kon wax dëgg na ba kon rek juste pour vous rappeler que le grand mouvement mu nar am fële ci Sorano mm-hmm. wa ANSA force one man laa leen di wowe sax nak nek ay jeune jóge ba West Foire ki jóge Bandar ñu daal di préparer li nga xamné moy c'est euh, une deuxième édition à Sorano et ce sera pour ce ce mois de juillet le 18 mm-hmm. euh, plus particulièrement alors dama bëgg képp kuy jullit mm-hmm. ñu ñëpp ñu daal di ànd dam féké li nga xam moy mouvement mais nak nee naa ay jeune bok ci mouvement bi surtout franchement ñuy bëgg ñaax nit ñi ci diine ah bëriwul kon ne leen jàppale bu baax a baax en tout cas man Dolce incha allah soxna Dolce sax laay wax dinaa ñëw def sama sama sama kii bu baax sama kol bu baax su ko defee sama xarit du ma mere kon maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax mhm. nañ la joxal sa carte Amina mhm. parce que tamit nañ indil waa j'espère que waa Amina dinañ ñëw incha allah dinañ woowaale tamit pour ñu ñëw ji xaaral ma wax léegi parce que danee nañ jullit yàlla lu mu mooy kuy fen mhm. man wóorul peut-être incha allah dinaa ñëw. n'est-ce pas Mariam naa ko waxee noonu dañ ma ci dañ ma ci kii dañ ma ci yar barki boo Ndiaye. moo tax léegi man ay wax ñu dul am léegi bàyyi naa ko. lu am laay wax wax bi jeex n'est-ce pas. du loolu ngeen di woote. mais daal invité nañ leen invité ci incha allah dinañ def notre maximum pour venir. kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax alors on se donne rendez-vous nee naa leen euh, le 18 juillet à Sorano su ko defee rek ñu daal di sant ku ñu war sant muy suñu borom sant xamee ki nga xam ne mooy Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa ndax nee leen kenn moom comme ma daal di dem rek ñu daal di seetaan ni benn benn bu neex ma daal di ko baaxee ñi nga xam ne ñooy sama xaadar yu rëy yi sama xaadar yu xattaaraal yi nga xam ne ba na ki tey ñooy sama xarit kon ñu dem suivre li nga xam ne mooy un son daal di ñëwaat léegi sur le plateau egg li waxtaan bi à tout de suite

tey la anniversaire am doom dundal ah dundal bu baax a baax a baax gudd fan wér gu yaram yaa xam ni nga bëgg yàlla na suñu yàlla na suñu borom daal di ci def jàmm bu baax a baax nga nekk mag bu am ñama ah am say bac am sa diplôme dem extérieur def li ngay def yëpp daal di dellu siwaat nag am tamit jëkkër ju baax ah ay doom yu barke loolu yépp laa lay ñaanal sama doom du ma fàtte benn yoon ki nga xam ne tamit muy Xadi Kebe Xadi Kebe moom dafa foor ci man loolu nag nee naa leen saa su ne bu ma génnee nice nii rafet muy solo ci man loolu muy tissu muy ñaw ba heure bu comme muñ ci doon muy minuit muy une heure du matin Khady Kébé mooy jàll fii démb nag wax dëgg yàlla ma chérie gàtte nga ma bu baax ndogu bi bëri woon na xam nga man damaa foqale ah Mariama ndogu bi neex lañ ma defaral damaa defaral ay xeetu miss méchoui ci ci ci waaw Mariama ndafal naag midi moo jot lii lan la nii Khady kebe kon maa ngi lay fa bu baax a baax je te fais un gros bisou ma puce waa allo gis nga cat bi daal sa doom sa sa sa sa sa sa jabar ah allo gis nga lii ah allo lii ëpp na de ci sa jabar xam nga ni lii sama xos yi nga xam ne mu daal di ñëw rek dañ xam nga ni lii cat la <laughs> allo coolu naa

alors santé vitalité énergie benn café rek moi leen di ko jox muy le café Valéa le café instantané nina l'en leen euh, garmi bu nekk ah, café Valéa amna na fa euh, la preuve bima ma dogu ndogg kër Khady Kébé macha allah euh, wax dëgg yàlla Kébé couture daf ma def benn pot de Valéa bu baax dou caagaane sax man maay def publicité bi sax mais wax dëgg yàlla dafa xam ne café bu gën ci café bi nan nee naa leen énergie ah vitalité à santé bi lépp ci la ne xam nga li nekk sama ni féelu ma ni dara fay ko kon nena naa heure bo len di ndogu rek te defoo ne café Valéa daanaka jàppale na ndogu wo len ndax café bi mo café moy café bu gën ci café ko yéen ñëpp damaa bëgg ngeen daal di daw gaaw ci euh, shop bu len gëna a ngeen daal di ko jënd alors juste le temps de recevoir notre deuxième invité né woon naa leen ko man ay jeune talentueux rek la invité ci sen euh, émission café show alors là j'ai le plaisir de recevoir li nga hi man de verre yi moo ma tiital ba pare ba mënumaa wax ci new style depuis Diopela c'est ça. Castor Castor ngeen dëkk. waaye nuyu leen pare après ngeen wax ma yéen yii yëpp ngeen décortiquer ma ko nuyu nuyul. salaamaaleykum euh, Castor Dieuppeul mhm. ñoo ngi nuyu waa Castor di nuyu waa Dieuppeul ñun la waa New Style doomu Castor booba tey nag maa ngi nga naa doomu Dieuppeul doomu Castor lañ. doomu Castor léegi waa léegi maa ma expliqué ma wala xam nga man. Mhm. yàlla dafa de damaa xosi waate ba sama baaraam bi teggeeku ko man dara frégenté ñeentewu ma xam nga xos ah yaa ngi pare gu ma da ngay ree yow daane la gu ma la. mi ma léegi man damaa juumoon am problème maa ngi jégalu. Ah, waaw jégal nañ la waaw mais ci loolee nekk. waaw ah, ngi sant mais présenté wu yow yaa ci kan ci groupe New Star yow sa tur kii tamit présenté wu. groupe New man maa fi Tafa. Ah, yow yaay Tafa Tafa ok yow nag sëñ bi. salaamaaleykum euh, man la xëcc ñu may ñu gën ma xamee ci tur yaa ngi xëcc waaw. ku yaay cë. non maa ngi xëcc. waaw <laughs> bon mag Tafa sama frère bi. Mhm. ñooy sos groupe New Style maa moom ñoo fi nekk. ok d' accord alors déjà groupe New Style ngeen de comme ni nga ko waxee léegi ni ngeen ne Castor ngeen nekk. voilà alors depuis euh, ban année ngeen daal di sos yéen seen groupe bi wala ku ci nekk dafa nekkoon ci carrière soloom après ngeen gis nekk que yéen a bokk euh, koñ war ngeen def seen fu bopp wala da ngeen bokk koñ war a gëm ne ku nekk am nga sa talent bopp ñu war a fondé benn affaire pour affaire bi nekk dara. Euh, depuis 2010 mm -hmm. depuis 2010 lañ fondé New Style. mais man ak kii ay cousin lañ quoi ñoo bokk même kër. mais New Style ñun ñaar nga gis rek mais New Style y a des plusieurs personnes yu nekk ci ginnaaw. am na ay góor ay jigéen mag ndaw ñëpp soo demee Castor foo laaj New Style dañ la ko wan du du ñun ñaar kese bëri na. mais nag ñii nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw di wëy di rap c'est vous deux. Alors le reste, on peut dire que c'est le staff. D'accord. Alors moi, je parle en ce moment de la carrière musicale de New Style. Mhm. Hein? Quand depuis 2010, vous sos ni groupe Alors depuis 2010, lan ngeen gis ne moom def ngeen ko amna fi buzz amu fi buzz naka ngeen jamono ji mouvement hip hop bi est-ce que gars yi ngeen ni xajal. waaw comme li nga nous avons, rek ñun mom ñu ngi bay suñu war suñu côté. Mhm. ba lu mu mën naasee rek ñu koy def. xam nga milieu showbiz ñu la jiitu ñoo la a ñu la jiitu ñoo la mën a mën a jàppale mais xam nga suñ si jàppul bon day dëggal mhm. mais ñun yàlla dafa def ñun yaakaaruñ si kenn gëm nañu dinañ dem ba ñun ñoo ngi demal suñu yoonu bopp quoi mhm, mhm. mais nag am na ñu siy jàpp lu si mel ni comme l'As des As mooy suñu manager ay ñoom Ndeye Fat Sarr ay ñoom euh, Bakary ñoom ñëpp Euh, koñ puso gañ élément yëpp ay ñoom tom papa laay ñoom ñëpp ñu ngi siy jàpp. las des as moom mu ngi fépp moom il est partout everywhere. oui ah moom mu soo nekkee si kon non booy boobu waane la booy bu soo nekk xam nga xam ne yow yaa kii pour def lii. Mm-hmm. yow da ngay defal booy. Mm-hmm. yaa mun kii kon waanewul dafa baax rek. waaw dafa ah, allah ñun dëkkal moom ñëpp a baax papa mm-hmm. moo leen gën a baax moom daf ñu ñuy defar clip. te mm-hmm. joxuñu ko dërëm. Global Studio d' accord ok alors depuis 2010 est ce que am na ay single yu ngeen génnee. beaucoup de single. waa ban ci wuy ma bàyyi sa yi tu n'es pas modeste naan ma ay beaucoup de single ci si ma invité bi yaa ci ñàkk bi ñëkk gën a ñàkk réglé nee naa leen man fii direct bi loo neex lay wax. ah jommi ngeen ne ah, ah jommi wala leen de ba tey new style dara jommi loolu ah new style ah, waaw moo tax seen verre du ñëw de lii yàgg na de verre yi. Ah. old style ba ma xool. lii di ma saf nii lii du verre càcc. du dugg ko ci bu baax xoolal wan ko téléspectateur yi ñu xool. xoolal ma verre chinois yi nga xam ne. chinois. la de. yow tiituma yow li nga sonne lan la. lii nii. Mm. xoolal lii kay wóobu ma la raay band ay raay pin. yow sax xam nga ni ñun ñun ñoo new star yow yaa ñu gën a ¿ah? xam sax. non dama dama leen di tooñ dama leen tooñ ay biir yu baax lañ def alors single yi ngeen génnee ah euh, yan ak yan la yan single ngeen génne ngeen may ci ñu sax tuuti ni gars yi bëggee ñu dàq koor. Euh, am na am na single bu njëkk génne mooy blow in the game boobu moom dafa nekkoon ñu gën a nekk xale. ñu génne blow in the game benn bi euh, bu si teg ñu génne raakaajo. xam nga dañu doon wax yéen rappeurs yéen si gën a raakaaju ñu ne ñun bon foog ñu génne def nañ ko clip sax mhm. ñu génnee raakaaju après troisième single bi ñu génne xanjumaat moom tamit ñu def ko clip mhm. après ñu génne waat tamit benn son ñu toogoon benn yër woo xam dañu offoon game bi quoi nekkoon si leneen est-ce que yéen ngi jàng yéen oui ñu ngi jàng yaa ngi jàng oui ñu ngi jàng ban classe nga laa yem moom lan paas ma kii man ma wax moom ñaari baat. man moom jànguma. yow jàngoo. non non wala lu leen jaral loolu de léegi nag tey ñu jëf ñu def cours émission bi nag tey fii lay yem. Ah. amul New Star amul dara. lu leen tere jàng New Star xam naa rek. lu leen tere jàng man moom ma jaaxal. waaye lu leen tere jàng. <laughs> non lu leen tere jàng. moom mi ngi jàng mais man dama wax lu nekk ci man. pourquoi pourquoi pourquoi tu veux pas étudier lu tax bëggoo jàng. si bañu ma jàng dama jàng en tout cas jàng naa. Mhm. li ma bëgg wax naa ko wax li ma bëgg lii naa ko liir ah, li ma bëgg bind naa ko bind xanaa tiit nga yow man kay tiituma ba te damaa waaru ci yow mais est-ce xam nga ne rab bi rab bi rab bi demul de. ah mais xam nga non non rab bi demul mm. arrête wuy ma kenn gisuma fi benn nit daa laa fi gis wala ñaar ñu fi tabax ay am seen yëfu bopp carrément. waaw loolu ñun ñoo ko imbo ñun dañoo gëm suñu bopp te dañoo dañoo oh, dañoo opté ne dinañ dem te ngeen di def. incha allah waaw mel nañu benn affaire bu ñu xool yéen di ngeen dem wala doo leen dem. rab leen ci man mii. ci yow sama loo leen clash leen loo leen xam wax leen. non yow duñ la clash yow duñu invité nag ñu ñu ñu lay problème de. loolu ñu may la suñu benn son. waaw may la suñu benn son ñu xool acca ñëw leen. waaw acca kon ñu may la son bu ñu am daa am son moom tamit dañ ko génne mu nekk ñun la. ñun la waaw xam nga new style dafa yaa. new style dafa yaa new style family ñu ngi suñu ginnaaw. ak suñu staff. waaw moo nekk nii. si sama invité yi. non def leen lu leen neex. waaw ah, new style leen def baax na. News Time moom daa woo daa daa daa kii turam daa wuyoo turam. aca ñëwal bàyyi ñu si dara dara dara dara. Ah. waaw léegi ñu may la benn son wu tudd ñun la. Mm-hmm. let's go affaire bi ñun la wallahi ñun la nangu ni ñun la ndogoolu kun la welcome to NS ñu wan la nan la ñu wan la nan la ñu wan la nan la affaire bi ñun la wallahi ñun la nangu ni ñun la ndogoolu kun la welcome to NS ñu wan la nan la ñu wan la nan la ñu wan la nan la ñun la booy yu con yi ñun la booy yu bon yi ñun la booy yu doj yi booy yu fës yi bëri noon yi ñun la roy yu kaay yi ñun ñoo jaaxal gaay yi ñun lay jaawaleek booy yu bon yi saay saay yi ñun la waaye kun la moom mi def si ñun de moom la ñun la geng sa rab bi ñun la rabu rab bi ñun ñoo bëri jàpp flow technique ci game bi ñun nga mënul juge gën la ciling gën la tilim ñun la booy slim takk bling nga di wërcë ñun la booy sweg yi ñun la boy fresh yi ñun ñoo ëpp buzz number one welcome su first ñun la never head nangul ndogal gëm ni ñun la eh, <laughs> wayu dara dara ok donc heureusement yorewul micro bi wayu kii ne wuy <laughs> ma yënki bu ma leen noonu a eggali émission ma eggali taagu too leen yéen doy na sëkk barke génn leen sama balaatu non daax naa leen non xam nga seen papa seen yaay am ngeen ay boy yu dangereux ah yéen ay boy yu dangereux mais mais mais mais nice na quand même nice na wax dëgg yàlla yéen da di dem macha allah kon tey ngeen mën a indil pur ñi nga xam ne ñoo ñuy saytaan tey ban ban ban clip ngeen ma indil tey Euh, ñu may leen xaanjumaan bi rek. waa léegi xaanjumaan bi ban ban message ngeen ci bëggoon lancer ci biir. xaanjumaan bi. Mhm. xaanjumaan veut dire xaanjumaan moom ñëpp xam nañu. waaw xaanju booy xaanju ni. Mhm. lu ay troc fii sàcc seen xaalisu parents yi di mhm. dem. boîte yi affaire ñu loolu dañ koy gis suñu ko dañ koy gis jaay yu koy def. ñun xam ko gars nag nee nañ. Euh, dédicage du rap tamit loolu dama si wax mhm. mais ngay dédicage tamit di sàll jàllale say message loolu c'est très important te ñun loolu la fas yéene def mhm. moo tax ñu def new style

bépp euh, booy boo dugg kaso mu neen ni style la bokk rek mhm. xamal ni dafa am lu mu bëgg mhm. comme ñun mu visé dara avenir am toxul naanul mhm. chimiwul fii université koo ñi ay élèves lañuy ñu ngi liggéey heure ba heure heure wàcc rek nga ñuy gis dañoo opté dara suñu avenir te bëgg fa yegg. Mhm. ñu bëgg nag magu kasoor yi parce que ku nekk sa mag nga am. dëgg la boo yooxoo say mbokk ngay say dëkkandoo ngay njëkk gis dañoo bëgg nag sunu grand yi sunu raq yi sunu mag yi jëppal kasoor derkale lañ wax. Mhm. te fépp daal. benn benn ko ñoom waaw la bëgg ñu jàppale ñu te bu ñu jàppale ñu sax parce que dañu bëgg affaire yi gën a dem. am na sunu yeneen moroom yi fa nekk. Mhm. kasoor nag dañ koy wax man sañ nañ ko wax ci kaw kasoor lu fa xew pojam waa New rek a ka teg. apa yang back concert bu concert am waa New Star rek la télé laay waxee. dëgg la New Star rek a fay teg concert. incha allah nañ bëgg nag ñu jàppale ñu gën ñoo ñu ngi taxaw. Mhm. waa New Star mhm. a a ñu gën ñoo dooleel daal. ah magnifique. waaw ah, loolu laa noonu ah, yéen da ngeen dem incha allah te boo leen waajal benn podium rek woo leen ma. ma def samay ay ay óol yu baax wala dafa yàgg li may wax. léegi sax si août bi. waaw incha allah suñ bi am na benn événement bi ngeen di waajal

xam nga la laan bëggoon def mais ñu may gars yi ñu seetaan ñi nga xam ne sax dëkkuñu Castor dëkkuñu Jëppal dëkkuñu euh, Derklé ñu mën a enjoy seen clip n'est-ce pas kon ñu dem seetaan li nga xam ne mooy le clip de New Style muy euh, ni ngeen ko dippee ça encore Xanjumaan Xanjumaan ñu dem seetaan clip New Style Xanjumaan et on revient sur le plateau à tout de suite my man. money blow, shot to show you daddy go. Go, blink, got the blink, so slick, I'm playing. Guy, then I'm going now for my guy. Gonna cause DJ boss, never cause, cover doors. Got my body show, that's why. Yeah. You know Jiblahaw na man egg nyo na kon na belus jaay ko way samedi jaay ma ne beu ba fa shit ba alors gis ngeen ko loolu moo nekkoon le clip new style ah new style groupe new style nee naa leen bu dëkk fële ca Castor ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ñu daal di def benn son bu tudd xanjumaan newoon naa leen ko fii vraiment dafa nekk ay jeunes yu talentueux mais ay jeunes tamit nag ñuy non dëgëruñu bopp sax non Mariama bàyyi xale yi ngay wax dañoo dëgër bopp yow tamit ah yow caméra woman du réglé ci place bu caméraman woman ah ngay wax sama sama sama sama doom yi dano danoo kii franchement c'est pas sérieux alors loolu moo nekkoon euh, tey sen émission Café Show ne woon ko tous les samedis ci mois de Ramadan bi dañu jël juste deux invités hein pour ñi nga xam tout le temps des nouveaux bëgg participer ci li nga xam émission Café Show ah nañ di semaine prochaine inchallah dina amata yeneen jeunes ñu jël mais après koor bi def comme avant daal le 3 à 4 invités mais juste pour le mois de Ramadan xam nga toog fii dañuy jël rek juste deux ñu mëna a concentré ci ñom bu baax ba di leen baaxee tamen li nga xamné moy clip yi nga xamné mo moo moy mooy gën ci di def buzz au Sénégal loolu yëpp di ngeen ko am ci seen émission euh, Café Show alors euh, bana ñu continuer li nga xamné moy suñu émission damay jaajëfal né na leen euh, ki ñi nga xamné tout le temps rek seetaan ko ci mel ni Fatima Dieye maa ngi koy jaajëfal euh, Kumbicha ay ñoom Awa ngoom ah Awa ngoom ñoom Maguette Sène nga xam ne jamono ji ñu ngi xaar seen résultat du bac vraiment dama leen ñaanal vraiment ngeen am ko ah ngeen am ko d'office ak mention sama sama doom yu baax yooyu ku ñu ñi nga xam ne noo bokk ci li nga xam ne mooy euh, groupe bu ñu sos muy xale dolce yi ko ñoom ñëpp képp ku bokk ci ku bokk ci crip euh, ci groupe xale dolce yi ah te waxuma sa tur dama leen ñaan rek nga daal di ma jéggal bu baax a baax te xam ne yéen ñëpp laa may dédicace rek ci yéen ñëpp bokk yem ci man yéen ñëpp laa bëggal sama bopp alors euh, di jaajëf fa tamit ki nga xam ne wax dëgg yàlla moo génn fii muy Khady Kébé Kébé bu ci kanamee banaa maa tëj damaa bëgg sama caméraman bi Pape Sarr daal di jël li nga xam ne euh, dafa baax ci été tendance ah modèle bi nga xam ne jamono jax wéeru ko def sama musóor bi nga xam ne euh, sama maquilleuse boobu muy Adama Diané wax dëgg yàlla kooku tamit dama koy jaajëfal bu baax a baax ndax saa su ne Adama Diané moom mooy ñëw sonn ci man maquillé ma tey nag moo génn ci musóor bu baax a baax nii kon naa Adama Euh, alors juste pour le plaisir de quelques téléspectateurs on va tout de suite aller découvrir le tout nouveau son de Big D un son qui est en train de faire ravage au Sénégal alors maman vais ko ah, clip de Big D bi nga je je le nouveau clip de Big D et on revient sur le plateau loolu mo nekkoon nee naa le tout nouveau clip de Big Di euh, fu nu jëm euh, wax deug yalla ñun mi nga xam ne ñoo jàkkaarloo moom ñun ñep xamuñu ko mais bon euh, di ñaan yalla rek suñu borom mu daal di ñu tekk ci yoon bu leer nañ di ko may képp ko xam jamono ji yaangi xawa am désespoir touti mën na len rek ñun ñep ngeen japp dina bax inshallah alors j'espère que vous étiez bien vous étiez

xool leen bu baax a euh buñu ñu ci loolu nak daloo leen tamen ñi nga xam ne ay jeune rappeur du nom de New Style ñu indi li nga xamné moy sen ben single euh, bu bay sak ñu dëkk feulé ci Castor kon képp ku dëkk Castor ku dëkk de l'orme ku dëkk parcel Parcelles way medina Pikine bàyyiwuma kenn north Foire west Foire Gibraltar rawati na fi ma xamné fofu la dëkk muy Gibraltar 1 képp ku fa dëkk ma ngi lay jaajëfal bu baax a baax alors je fais un gros bisou à tout le monde mais avant cela euh, j'aimerais juste vous dire que euh, ce soir à partir de 21h hein, pour la programmation de votre euh, télévision à la chaîne sénégalaise. À 21h, vous aurez euh, l'émission Ndogo Solidarité avec la très charmante dame Rama Aydara euh, qui animera cette émission ce soir à partir de 21h. Et juste après, je vous retrouve à partir de 22h pour votre émission Liheu en compagnie de Ndogu Afia, Talibé Afia, Bousseigne Baké Kok nga xamné Baye Fall bu mak la kon kep ku deuk Médina kep ku deuk Fass

yéen c'est-à-dire kii ngeen mën a yàq vision ki nga xam ne moo génn fii muy euh, Khady kebe kebe couture nga xam ne tout le temps moo may génn ci lu baax gis nga ko tey li nga xam ne muy jupe bu baax moo ah daal di def euh, benn o def sama musóor bu baax a baax alors képp ku ci bëgg ci li nga xam ne mooy tourne bi da ngeen di woote au 77 414 42 34 ma joxaat leen numéro bi 77 414 42 34 kon Fanta alors je vous donne rendez-vous ce soir à partir de 22h pour votre émission les mais jusqu'à là restez coachés branchés euh, pour, votre programme de la LCS et euh, je vous donne rendez-vous samedi prochain gros bisous.